waaye ko ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy wàllum rab rab dafay def lu bëree bëri ci doomu aadama surtout sama mbokku jigéen ñi rek léeg nga sëy lu yàgg doo am ñu ne la rab moo wala nga am biir boo xam ne dafay néew fi mu toll rek defe ni eh, ëmb la fekk na du wala sax nag mu tere laa am borom kër nga toog lu yàgg gisoo borom kër sëñ dam waaw jërëjëf soxnaay sax loolu nag damaa yaakaar ne lu xew léegi la jamono mhm. surtout li nga mujjee mooy da gis jigéen joo xam biiram day neewi rek yaakaar ne dafa wan na lor bu demee hôpital ñu ko xoolee nga ne ko gisuñu doom loolu nag rab dina koy def euh, man fan yi rek am naa ci benn benn cas mais wàllum rab ci jigéen ak wàllum rab ci góor moom lu fi yàgg la moom la ñuy wax xarinu rijal ak xarinu unsa muy àndandoo bu góor ak àndandoo bu jigéen loolu nag lu mën a lu mën a dañ la ci góor lu mën a dañ la ci jigéen surtout góor ñi nag daf leen di sonal indil leen genn jaaxle gi parce que man ñi may jambat dañuy dem ba jekki-jekki seen euh, awra wàññeeku wala bu ñu jegee seen soxna dootuñu mën te loolu rab moo koy def dafa am benn rab boo xam ne ni boo àndeeg moom lim lay def mooy mën nga ko doo ko gis mais daf lay ëf ngelaw ngelaw loolu mooy dajaloo ci sa ci sa digg bopp ci yóor gi su ko defee dootoo bu dee góor nga dootoo man dara su dee jigéen ngay dafay dafay dafay dafay jaxase sam xel loolu nag euh, lu mën a dañ la xamna ne bu fekke kep ku ko am dal su ak yeen dara dañ dañ bu gaaw mhm. su fekke jigen ju taxaw la bunul am dom inshallah bu xore tabi am mom ak borom këram dinañ xam ba xam ñom ñaar man nañu am doom bo mun ñu am doom mhm. parce que nak ala kulli al amna ñaar ño xamni mom mënu ñu am doom mhm. il faut lolu leer mais suñ ko xoolee xamne walu rab la kooku su fekke jigen ju taxaw la ci walu borom kër suñ ko bu walu rab la amna waa <laughs> kay numéro yaayu noonu ya ngeen joko ak ñun ci 78 018 18 16 wala ci 77 555 91 57 sëñ Dame ana nan la nit di mën a moytoo li nga xam ne rek mooy rab. wa ni nit di moytoo rap <laughs> yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne dee leen téye seen doom waxtu yor mhm. ak waxtu timis bu ñu jógee ci loolu muy ndenkaane boo xam ne bi moo ko defoon ndax jamono yooyu. ci la rab yi di dox te mën nañoo dugg xale yi mu màggaaleeg ñoom. Euh, joxe woon na it ñaan képp ku dem bay ànd ak sa soxna nga am ñaan goo xam ne moom ngay ñaan muy allahumma jannib na seytaane wa jannibi seytaane maara saxtana soo ko defee boo àndeek sa soxna bu ci doom sosoo seytaane du ko mën a daal euh, mu wax na it bu guddee dee leen tëj seen buntu yi parce que seytaane yi dañuy dugg ci seen biir kër yi mu waxoon na it seen buntu buntu toilette koy tëj parce que am na seytaane yoo xam ne ci toilette yi lañuy dëkk te bu guddee bunt bi ubbeekoo danañ dugg dugg danañ génn dugg ci biir nit ñi léegi nag jamono dafa dem ba xam nga bu njëkk dañ daan ginnaaw kër maanaam toilette bi dañ koy yóbbu ci ginnaaw kër gi mhm. sooy génn sax da naan damay dem ginnaaw kër léegi nag dafa dem ba toilette bi da ngay dëkk moom ci sa biir néeg li ñuy wax salle de mais salle demee boobu da koy tëj bul jàpp na ci biir bi néeg bi la nekk bokkul ci néeg bi parce que am na loo xam ne boo koy defee ji foofu nga koy defee ji koy tëj toujours dama koy digal ñu bari mu wax ne bu ngeen di tëdd dee leen fay sen lamp yi ndax janax mën na cee fo ba taal kër gi fekk janax seytaane la ñu bari nag dañuy defe ne sondeel la même ba ci lamp courant yi tëdd guddi da koy fay nit ki buy tëdd guddi dafay fay ay lampam su ko defee mu jàng fatiha jàng ayatul kursi jàng bismillahi rahman rahim ñaaf ki yoon ak benn loolu gàtt na mu léemoo ko tëdd insha allah yàlla dina ko may jàmbam yow si jàmm macha allah macha allah am na solo sëñ daam ñaanalal mbokk yi waa xam naa may ñaan rek yàlla def fi jàmm def fi xéewal yàlla dool nañu sutura dool nañu barke ñi ci lali hôpital yi yàlla na yàlla may leen wér ñi ci bérébu natt yi waa ñi ci kaso yi yàlla na yàlla jële leen fa te ñu yàlla suturaal leen ba duñ fa duñ fa delluwaat ñu tukki ngir seen njaboot yàlla na leen yàlla delloo si ci réew mi te ñu daale xéewal di wax ne allahuma salli ala nuuril anwaar wa siril asraar wa tiryaaqil axyaar wa miftaaxi baabi yashaar sayidina muhammadin al muxtaar wa alil adhaar واصحاب الاخيار عدد النعم الله وافداله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما شاء الله جل جل سندان بابنين جنجي جف